duul rek Antoine ñàkk jom bu dàq ko duul ci monde bi wax ngeen relayé yéen seen seen duul naa lisi ñiy waxati politiciens yi ku nekk yow <laughs> nous déplorons les morts <laughs> les blessés graves <laughs> cet acte est ignoble mais sa waay dem leen loué ay néew dem leen loué ay néew dem leen loué ay blessé ngeen ñëw teg dara suñu bët yi teg leen dara suñu loxo yi teg leen dara suñu loxo yi kaay rus leen nag am leen ngor di di rus doo leen nit politicien laay waxal noonu la ko demee kenn teewu ci ko tànnee mu xam nga nit ñi daw génn ak kenn gaañu si gaañu bu métti métti noonu noonu noonu sax daal dañuy sóob rek li ñuy wax yëpp amul waaw te man dama jóge woon ko noonu di dem Colobane bon bi mu amee après xam nga dama waa ci daw dellu jël oto ñibbisi parce que maay dëkk zone Mbour bi après si laa daw ñibbisi quoi parce que dama doon dem Colobane après noonu la fa demee quoi mais nekkul loo xam ne li ñuy soobee noonu biis bi affaire bi ñu ko dóoree si biis bi ñëpp daw génn tasaaroo waaw jàppul yére kenn foofu noonu ba lakk ko affaire yooyu noonu voilà noonu la fa demee. pourtant bokk mi ngi noonu da bokk dégg ngeen la nee na kenn deewu ci ñëpp a daw génn waaye yéen Khalifa Sall ñoom ñii ñuy rey ñii ñii ñoom Khalifa Sall Barthélemy Souta Dias ak duulkat yi politiciens yi nekk Sénégal mënoo naan dañuy wuti pouvoir seen bàyyi sax bu yoroon pouvoir du leen ko jox. ndax c'est pas des responsables c'est pas des gens qui méritent di di jiite sax seen biir kër yi wax ma naan dañuy jiite réew ndax koo xam ne il n'est même pas prêt di dóoraate di dóor te xamoo lan moo xew bàyyi balaa dóor day xool lu xew xam li xew mu lijjanti ko balaa mu ne balaa moo àtte ñii nii jaruñoo jox sax kër barke alxuraan bu doon man la billaahi du ma mus a jox sama àdduna sama kër laa la wax du ko mus a jox Idriss Seck mu koy jiite ndax mënul jiite sax këram ñoom ñëpp seen doom yi ay taxawaalukat cago drogue ak euh, nankatu sàngara lañ muy doomu Idrissa Seck ak doomu Macky Sall ak tux yàmba ak taxawaaloo lañ fi nekk ñoom ñëpp seen doom yi sax mënuñu leen yar ñu ne dañuy gérer un pays ay doom defkatu gaaf lañ sàcc seen milliards yu bàyyi ñu sàcc suñu bàyyi seen bàyyi sàcc seen alal ñu sàcc seen alalu bàyyi du ko noosee Abdoulaye Seck di taxawaaloo ko wëri caga nekk ci hôtel yi di laalanteeka loolu di partouze ñu munul yar seen seen kër yi mënuñu yar seen doom yi ñoo ñoo ñu bugg a jiit xam ñun sañ nday baaxul kon nag Sénégal mi ngi nii ñi ay seede lañ du jeex lu ma ci yor ci seede ña nga woon ci biir kenn deewut kenn deewut kenn deewut ngir yàlla nee leen Macky Sall bàyyil duwul kenn deewut bàyyil fen kenn gaañuwul fa gaañu yu tax yu wax kenn nekk ci hôpital yi kenn newul ci néew de bàyyi leen fen bàyyi leen fen bàyyi leen duwul ay waay Antoine ñàkk jom ya sonal nañu mun ak fen mun na duul jottali fenkat yeneen yi ku nekk di duul kenn deewut kenn deewut kenn deewut kenn deewut ñi bu lee da ngeen ñoo yéene ay dee yàlla na seen doom yi faatu yéen ñi yeewu naan ay ñi ngi jaale ñaar ñi dee te gisu leen kenn amu leen tur yéen ñi ni ngeen ñi yéene ñun askan wi yàlla na mucc si seen kër yi ñaar ñiy deeyoo yàlla na génnee ci kër ñoom Khalifa Sall yàlla na génnee ci ñoom Barthélemy Dia yàlla na génnee ci képp politicien Macky Sall yi taxawul fii di rey ay sénégalais yi deewagul ay rey di rey di rey di rey bay inspiré wu di imaginer ay nit yoo xam ne deewuñu ngeen leen bugg a rey ay assassin ngeen xam nañ leen ay reykatu nit ngeen ay lekkatu nit ngeen ay nankatu deret ngeen mais ngir yàlla bàyyi leen ñu ci jàmm ñu nii xeex kenn deewut kenn deewut ci kaar boobu ngir yàlla ah ne ñun lan lañ def yàlla ñun sénégalais yi war nañ toog seetu de ñun lan lañ def yàlla ñun lan moo tax yàlla mosuñoo baaxee lu baax Sonko mi ñu baaxee sax tey jii mi ngi noonu eh, caabi féete ko ginnaaw ñu comploté ko tiiñal ko taqal ko ba tëj ko ci kaso ñun lan lañ def yàlla ah ku nekk ci ñun war jàpp de wala ca la nga gëm diine ga nga gëm nga nga jàpp ba set wala nga préparé wu nga dem toog wéetoog yàlla nga laaj ko man yow oh, laa la def lan laa def nga xool dëkk bu gën a doome xaraame nga wàcce ma fa muy senegal dëkk bu gën a xaje bu gën a salte dëkk bu arriéré ni taat dëkk bu xenqunu dëkk bu bëri yoo bëri mbóot bëri mbottu bëri weñ guddi ki nga yónnee ma ay weñ yoo ñu matt ma ba sama yaram bi di dagg ay waay yàlla lan laa la def lan laa la def jox ma ab passeport boo xam ne mënul dem fenn passeport boo xam ne bu ma ko yoree bu ko tubaab bi tamponné wul mënumaa bougé mais dara ay waay yàlla lu ma la def lan moo tax nga xool dëkk bu gën a doome xaraame wàcce ma fa lan laa la yàlla lan xanaa dama laa tooñ te yëgoo ko lu gën a ñaaw tee bon rek nga teg ma ko lan laa la def ah ku nekk war na mun a toog nag ñaan yàlla jéggalu ko yàlla baal ma bu dee dama laa tooñ te yëguma la ba yëguma baal ma yàlla yow yaay buur yaay defuma la bu dee nag damaa ko dama la tooñ te nga baal ma yóbbu ma ci dëkk goo xam ne guddi gi yooyu di ma lekk di ma lekk ba naan un litre deret mayewu bëccëg sangu weñi ñëw di kole sama kaw guddi gi yëpp ay yoo ñoo may lekk bëccëg bi ay weñ ñoo mel ni ko néew mel ni néew bu yooyu rey ci guddi gi ñu commencé tegu sama kaw bu may lekk mango sax ñu wër ko lu may lekk ñu wër ko bu di ko lekk ak man bu ma tegee sama fonde sax ay weñ na tëmb ci bu ma tegee sama ceeb microbe yi taxaw ca weñ yi ñëw toog ci da ngay lekk teg bool di lekk weñ yi ñëw di lekk ak yow ngay dàq weñ yi ci bool bi nii di dàq weñ yi yàlla lu ma la def lan laa la def bu ñu paree ay njiit yu bon bon bon yu mun a fen mun a sos mun a comploter di ma jiite di ma fen di ma rey di ma toroxal bu ma feebaree duñ ma faj bu ma ñàkkee duñ ma may aw ma benn jox ñu ma opportunité liggéeyu ma xëyu ma ma bu ma liggéey ñu def ma mbaam di ma fay cinquante mille soixante dix mille liggéey loo ma ne xaj mais yàlla lan laa def bu ma jàngee bay bukka dee am samay diplôme balaa ñu maa jël bu dee jigéen ñu tëddee ma yàlla lan laa def yàlla lan laa def lan bu ma bëggee tukki du ma mun a dem di wëri ambassade taxaw dajale junni fooy juróom-ñaar yii ma sos fi yii ma yokk yii ma fenn pour am visa ñu rejeté ma ma fay lu ma amoon yëpp ma dajale yëpp ci biir mbirum visa ñu ma yàlla lan laa def. nit ki juddoo Amérique moom am këyitam mm, mm, mun a dem fu ko neex ci àdduna yàlla lan laa la def te yëguma ko nga wax ma ma ma jégalu la. waa ji ne Amérique di yeewu moom benn yoo du ko sonal guddi gi man yooyu di ma rek yàlla lan laa def. ku ci nekk ci nu war ngaa mën a toog nag jéggalu sax yàlla même boo ko xamul di jéggalu te di yàlla jéggal ma yàlla baal ma yàlla baal ma bu dee man ma laa tooñ yàlla baal ma bu dee yëmu ko yëg bu nu ko yëguma ko ay bandi salté sauvage animaux nekk ci média yi guddi gi yoo bëccëg bi weñ ma taal télé ay duurkat taxaw di ma fen rek ma fay télé bi taal rajo bi ay duurkat di ma fen rek ay duur di fen di sos ma génn ci mbedd mi torox tànge metti ngelaw gi tàng mbóoya sama yii yëpp di dagg sama kii yi woo koŋ di fet taf taf taf lan laa def yàlla naaj bi tàng quarante cinq degré dans l'ombre yàlla lan laa def lan laa def te yëguma ko nga wax ma ah bu ma génnee guddi gi yoo bëccëg bi weñ ma nekk ci biir kër gi xat tàng di ñaq di tuuri ñaq ma génn ci mbedd bi tàngoor 45 degré dans l'ombre may dox pënd poussière mbooya sama kii mi ñi xar sama tuñ yi fett yàlla lan laa def lan laa la def te yëguma ko nga wax ma bu ma taalee télé duulkat yi taxaw bu dul politicien du duul naa liste taxaw ñuy duulante bu ma soxlaa liggéey mënuma ko am bu ma feebaree ñu teg ma ci ay blancar ndox mu baax mënu ma koo naan ceeb laay añee di ko reeree bu ma ko mélangé sax ab des fois dugub gi la soit maafe ndëgal soit euh, euh, laax soit sombi soit cere wala caakiri wala nambe yàlla lan laa def lan nekk jeune am doole war a mun a liggéey di am vingt ans à cinquante ans musuma liggéey yàlla lan laa def lan moo lan moo tax nga ñàkk ma chance bi lan moo tax nga ñàkk ma chance lan moo tax joxoo benn chance lan indi ma sa adduna bi joxoo ma benn chance dara dara benn opportunité ay nit yu bon nga boole ma ay nit yu bon boole ma ay sàcc ay détourné de deniers publics boole ma ak raykatu boole ma ay ñàkk ak ak situation dëkk bi nu mu tàngee nu muy méttee yooyu weñ bu nawet ñëw ngox yi ngox mbott yi ngox yi guddi gi yooyu de la yàlla ma def ku ci nekk ci nu war naa mun a toog nag ñaan jégalu yàlla ah affaire bi metti na de ñun ñu ñu dal lu ñu dal doy na waar nag de non metti na ba ci kanamu yàlla ay waay yàlla nañu yàlla jégal waay ay waay yàlla na yàlla yàlla wàcc yërmande Sénégal ay waay yàlla na yàlla wàcc yërmande ci Sénégal ay waay yàlla nañu yàlla tàqaleeg politicien xaj ku ci mbow yi ay waay yàlla nañu yàlla tàqaleeg assassin yi Macky Sall ki ci nu mu gën a seddee ay waaye yàlla nañu yàlla tàqaleeg pyromane yi yàlla nañu yàlla tàqaleeg terroriste ñoom Macky Sall ak i politiciens xaj yi kutimbo yi ay waaye yàlla nañu yàlla tàqaleeg rebelle politiciens yi xaj kutimbo ay waaye yàlla nañ faatu waaye ñoom ñëpp yal nañ faatu fa yàllaahu waaye nu mu gën a gaawee yàlla nañ fekk ji ñoom tanoor yàlla nañ fekk eh, ñoom ñoom